xaaj boo xam ne koo jëmale ci wàllu àdduna ak xaaj bu mu ci alaaxira xaaj bu bi nag jëm ci wàllu àdduna moo tàmbalee fii mu wax ne bismillaahi maa ngi tàmbalee ci turu yàlla arrahmaani yàlla mi aji xéewal xéewal yi dijj yi arrahiimi yàlla mi aji xéewal xéewal yi sew yi bismillaahi arrahmaani rahim mooy maa ngi tàmbalee ci turu yàlla mi nga xam ne mooy maasale yërmandeem ci àdduna xéewal ñëpp mooy xéewalaali sax ñi koy weetee ko mooy arrahim nag mooy yàlla mi xéewal ci àllaaxira rek ñi gëmoon ci àdduna wasalla na dolli tedd nga allahu yàlla xalaa sayidina sunu sang muhammadin muhammad sallama tem dolli ko tasliman dolli wolu yal na yàlla dolli sunu sang muhammad dolli ko mucc dolli ko xéewal dolli ko mbooleem ay bokkam ak i saxaabaam alhamdu xeeti cant yépp lillaahi aj yey la ñeel yàlla allasi yàlla mi nga xam ne àllama xamal na al insaana nit maa xam ne lam yaalam xamu ko woon yéen mi ngi tàmbalee ci sant yàlla mi nga xam ne moo sàkk doomi aadama doomi aadama xamutoon dara yàlla walbatiku xamal ko ba mu xam lu bare bare bari ci coobareem ثم الصلاة توب دولي ترل والسلام أك دولي وولو على نبيه يلا نكي ينانتين با صفيه كي أوتان نيفم العيلمي كي جيج العيلمي كدي جيج وعلى آله أكيم وصحبي أك أي صحابام ما أعمل لفيد جفلوفنا لكي لفيد بندلوفنا القلم قلمك فوق الألواح تكو ألويه wal awraaxi ak kayit ya nee yàlla na yàlla dolli salaatu ak salaamu yonanteem bi nga xam ne aw tànneefam la di ko mel ni géej yàlla na yàlla dolli salaamu ba tey ay mbokkam ak i saxaabaam di fekk nga xam ne ñu ngi jël xalima di ko bindee ci kaw àll ba mbaa ci kaw kayit rek yàlla na yàlla saxal salaatu ak salaamu ci yonante bi ak mbokkam ak i saxaabaam amma baax du ndaal gannaaw sant yàlla julli ci yonante bi fa yaqulu dana wax almudnibu aji bakkaaru ja arraaji kay aji yaakaar wa xufraan rabbihi jëkkalub boroomam ahmadu bamba te mooy ahmadu bamba xafara yal na jëkkal allahu yàlla laxoo ñeel ko wali waalidayhi ak ñeel yaari waajuram wali jamihi ummati ak ñeel mboolem xeetu yonante bi ak damba bakkaar ba nee na gannaaw sant yàlla ci lii ci yonante bi man ahmadu bamba mi nga xam ne dama yëg ci sama bopp bari bakar, te yaakaar yalla jeegal mako kon yalla nu yalla bal man ak say wajur ak bolu xet yonante bi yàlla nu yàlla boole baal sunuy bakkaar nee ngi wax ne hazali kitabu abtere la nafiisu bu aji sel wala bu aji kanjaru kanjaru moy for li annahu ngir naka moom anisul aji wett li la aji wett li la li ñeel ka nga xamne la sama ho taxoo naa ene téré bi day téré bu sel la bu bare bare ñari day na wétal sëkk sax ku taxaw moom rek mu doy na wétal samay tufoo tuddi naa ko kal jawahiri fiilu ko rusiya sil ku day firi fiil mooy wëñ wala fiil ga ñi nas ay per al moo tudd silku téere téré nga ko tuddi nag caqub ay wurus ci misaal daal man nga ne silkal kal jawahiri cakup ay wurus fi akhbari sarairi ci xibaari mboot ya yene téré wit kont dina ko silku jawahir fi akhbari sarair ay bolé na xam xam yu sel yu am am jariñ nas ko nas ba melni caq tudde ko nak silku jawahir fi akhbari sarair ba jaal du ma def ko abwaaban mu ay buntu neena nak ay bunti buntu la ko def albaabu buntu bi al awalu bi aji jek fi ahwaali dunya nek na ci mbiri aduna wa fi dhikri hikayatin, ak ci tuddu ay net bi wa fawaida ak ay njariñ waaw nee na buntum bi dama ci wax mbiri aduna nim doy war te da ci itam ay net yu bari lool ak ay njariñ yu tegalo tegalo yu bari bari bari bari waalam na nga xam ne ayuhal akhu yow mbokk mi billahi ci yalla xamal nag ne anna raaxata dunia naka nooflaayu àdduna ayyaamun ay fan la xalaa ilu yi duway néew wa aktaruhaa li ëpp ci ñoom kat mu naxasun lu ñu naxal lay doon bittaxa bi ci coono wa mashoobun tey lu ñu jar jar mooy jaxase bi nasa ci coono wa bi sababi ci sababam kat tafuut lay rawe raaxatul aaxirati nooflaayu alaaxira allati àllaaxira ma nga xam ne xiya moom at daa imatu mooy aji sax ja albaaxiyatu ja aji des wal mulku te mooy nguur ga allëfi ga nga xam ne laa fanaa adeetub jeex laxoo di ko ñeel wala nihaayata di deetub yemukaay mu ne li ma lay njëkk xamal mooy adduna mii kat ak noof laa ci maanaam boo ci doon noppal noppal gu mat itam ay fan yu néew lay doon te mu ne sax nooflaay boobu mënta mat ndax foo fekk nooflaay adduna yàlla da cay rax xeeti coono xeeti musiba xeeti naqar yoo xam ne mooy tax nooflaay ba du sotti te mu ne nag boo fi bëggee noppalu nag sax noof noof nooflaay boobu ngay jéem lay far moo lay far xañ nooflaayu alaaxira nooflaayu àdduna bu gàtt bii te ñàkk solo lool te mënees fee noppalu sax daanaka ñu ne boo ko dee jéem ah, boo bëggee noppalu fii ci àdduna ngay xañ sa bopp nooflaayu alaaxira ma nga xam ne ca dëgg-dëgg mooy nooflaay ndax alaxira mooy kër kër lu jeex mukk te fa lañu amee ngor goo xam ne ak folliku du ca topp mukk nag lu sahlun aji yomb la xalal xaaqili ci aji xellu ay yasbira mu muñ fi hadihi al ayaami ci lay fan al qala'il yi diwoy néew li yanaala ngir mu am raaxatan noflaay daa'imatan du aji sax qidaa'in ci lu jeex mu ne kon nag ku xellu war ngaa mën muñ coono àdduna yi nga xam du yàgg ay fan dong lay doon du dugg nag ci noflaay bu sax faaw faaw bi ci àllaaxira te du jeex mukk ne ku daal dana nangu muñ coono bu néew bi di fan yu gàtt gàtt daal dugg ci xéewal goo xam du am fu mu yem waxad aw baxa leeral na cheikhuna sunu sëriñ alxasaali yu teem alxasaali radiallahu anhu xaala dunia mbirum àdduna xalaa am silatin ci ay misaal yu bare دا وخني الامام الغزالي دون ليرال بي ادنا با جوخي اي مثال يبري من ها بوكنا تاني ان رسول الله نك يونت يالله با صلى الله عليه وسلم قال وخنا في شهر حاج جبر ادنا لا احذروا وتلكوا لين الدنيا ادنا فانها نك مام اسحر بوكنا جبره بوكنا وداق جبر من هاروت تي هاروت وماروت اماروت أم mu ne yonante bi neena woon na ngeen wattu aduna ni mën jabaré ya? jabare ni mën noté nit ci njabar mu ne sax ni mën noté marut ci njabar moo ci raw xaaroot ak maaroot xaaroot ak des na ko ci alquran ci suratul baqara fa ñu njabar wa awalu hariha jël doonu njabaram ak njabaram bu annaha naka moom turi ka dalay ka annaha da naka saakinatun aji dal indaka fi yow مستقر تاج سخل معك عند يو تو إذا تأملتها بوك ستنتلي خلتها نجرتك ساكنة من أجدل وهي تفاق نموم حاجبة أجدل من تجيو نافرة تاج فلنا عن كورس على الدوام تسخ وإنما تتسلل نقد نراتك ذرة ذرة توتي توتي ذرة من فيني أو sank leen ci gannaaw sank lañ bo tuuti tuuti rek ni bokk na ci ni aduna mëna naxé moy da ngay defé né yow la andal té du tagu yow mukk té dikati yow bo tuut wax ji gëna wër moy ni ngi rocc ko ndank ndank té ko kon bokk na ci ni lay naxé dal moy day melni day and yow nga nek ci mom té du jeex mukk waye boko dé sét ni ngi rocc ko ndank ndank day jekki jekki rek jeex wa matalu dunya misal aduna kamatali zilli mi ngi mel ne kem ab ker mel ne ker itaara ay taxoo boo ko gisee xasib taxoo nga jortu ko saa ki nag muy aji dal waxuute moom yàmburu dina wéy daa iman ci lu sax faka zalika naka noonu umrul insaan dundu nit yàmburu day wéy bi tadri ci ndànk-ndànk xalaat dawaa ci sax mayoon xuusu te muy wàññiku kulla laxzatin ci gépp gendiku ba tey nee na mën nga koo misaale ker xam nga ker boo xëyee gis ko noonu day mel ni dafa ne teg demut waaye ndeket yoo day wàññi ko ndànk-ndànk ba keroog muy jeex tàkk nit ba tey ak dundam noonu la mel bu dee xëy ak gont di yendoo ko fanaan day mel ne moom ko fi nar a sax di wéy waaye ndeket yoo ak dundam mi ngi wàññi ndànk-ndànk te day jeex day àgg rek jeex tàkk wa kazalika naka noonu la adduna adduna tuwaddihu ka dana la tàggu wa taxaru bu te muy daw ko ci yow wa anta te yow xaafilun aji sàggan nga laa tax buru doo xam wa daahilun te aji gëlëm nga laa tashuru doo yëg noonu ker gi def rek di wàññi ko ndànk-ndànk te yëgoo ci dara adduna it noonu la mel mi ngi lay tàggu di daw ndànk-ndànk di jeex ndànk-ndànk doo ci yëg dara ba keroog nga wëlbatiku rek jeex tàkk ci yow. ànd wa mun haa bokk na ci misaali adduna ànd mun si xali haa naka naka bokk na ci jabaram nga. annaha naka moom tubhiru day feeñal la ka ñeel la mahabbatan ak cofeel li tax chiqaha ngir nga sopp ko li tax chiqaha achiqa lay doon kon li tax chiqaha ngir nga sopp ko loo tumu ko te mu lay wan ne annaha naka moom musaaxidatun aji dimbale la la ka ñeel la wa annaha ak naka moom laa tantaqilu du toxu min indi ka bàyyi ko fi yow ilaa xëy ka jëm ci keneen suma tahor top dama delu nak xaddu watan di am non la ñeel la ala xawlatin ci kaw ak yóge di nee na na ci abnu ni muy naxee moy day mel ni ku lay ne dafa laa sopp ndax bëgg nga sop ko te bëgg ko te wut ko mel ni ku du bàyyi fi yow bëgg te fekk na day jek jek mel rek sop non te do ci yëg dara wa mataluha misalam kama salim raatin mi ngi mel ne misaalum jigéen faajirat njudi ab saay-saay xaaji góor ña xataa isa xashiqooha ba nga rek daxat fu mu woo leen ilaa bayti haa jëm ci néegam faxataalat hum te mu yongu leen wa ahlakat hum te mu alak leen li ngi misaaloo ne jigéen joo xam ne ab saay-saay la day nax góor ñi dañu bëgg ko mu woo leen bañ àgg ci néegam nag ba wéet ak ñoom daal leen di jékki-jékki rey benn yoon war a aaj gisoon na xiisa xiisa alayhi salaam adduna adduna fii mukasha fii ay mukashafaam fii mukashafaatihi ci ay ko yàlla wan mu gis ko waxiyate moom ala suurati xajoo si nekk na ci melaw am màggat mu jigéen xarimatu mu aji màggat waqaala mu wax la ko ne ko kam kaana xam ñaata kaana moo nekkoon lëkki di la ñeel minal aswaaj ay jëkkër fa xaalat mu ne ko laa di saw na defu leen mën a lim li kasratihim lu seenu bari fa xaala Isaa ne ko ndax faatu nañu xan kii bàyyi la gannaaw aw tallaqoo wala pase nañu la fa xaalat mu ne bal a anaa man xataltuhum naa leen wa aflaytu te ma jeexal leen na Isaa yalla da ko muriloon secret won ko aduna ni meloo mu meloo màggat bu jigen bu màggata màggat moo xam ne ñaaw ga doon war da ko hisa la jene ko waaw ñaata jëkkër nga ma saam mu ne ko dañu bare bare ba kenn mu leena tak mu ne ko dañu faatu am leen la fase mu ne ko faatu pasiwuñ ma mu naa mën ma leen ray ma leen jaxal tak fa xala xiisaane waa xajaban yéem naa يا عجبا يمنا كمتان لهؤلاء الحمقى ñeel ñi le way do fe man leen am na fu bind li haula il xumaqa yi da xam xumaqa wu fu xalaaw jàmm la waaye alxamqa moo gën a bari moo gën a siiw al aaxarina ñi ci des allafina ñi nga xam ne yu shaahidoon nga dañu jàkkaarloog maa sanax ci la nga def bi si waaxum ci kudul ñoom وهم تنيوم راغبون أي خيمم لن في كتير في سادات أنت أبدون لكم أن دو يوم نادو حيوم خمنا جسن لغا دفشن مرام جكري ترغي نيوم يتقنب أكا دوغ نبلاتك ومنها بقنا تي مثال أبدون أن من سحرها نكا بقنا تي أنجوارم نه أنها نكا مم تزيل دي رفتل ظاهرها بتيم بمعاشرها تي أي رفت رفتل وتوفيت من لقم mihanaha ay coonaam wa xawaa'iha ak i bon bonam fii ci biiram li taxurra ngir mu war aljaaxile aji réer ja bi maa ci la nga xam ne yaraax dana ko gis min zaahiriha ci biteem te bokk na ci misaali àdduna ak ni muy naxe wooy boo dee xool kawam nii day rafet lool waaye li mu ci biiram ay coono képp la ak i nax nax ak i bon ndax bëgg na ñi nga xamee ne xamuñu kawam mën leen a nax ba leen a nax moom itam rek wa mataluha misaalam xajuusatun am màggat mu jigéen la xabiixatul manzari muy aji ñaaw ab xoolukaay mooy bu aji ñaaw doone ko jàkk tux fii wala nëbb waccaxaa kanamam nga wa talbasa tamuy sol axsana siyaa bi gën jaa rafet yére ya wa tatazayanu tamuy waaj li taftina ngir mu fitnaal alxalqa mindeefi min baxiidin ci bu sori fa isa kashafoo ne wuñu nañu rek an xaa walis ko xitaaxaa muraawam nga aw ximaaraxa wala muuraawam nga wa alxaw te ñu sànni xan xaa walis ko isaaraxa kumbaam sa la di moo rëccu ala mahabbatiha ci soppam bi maa ca la nga xam ne shahadu jàkkaarloo nañ ko min qabaiha ci ay bon bonam waxaa yenoo te ñu jàkkaarloo ko min fadaiha ci ay gàcceem ba tey nee na àdduna ma des na koo misaale màggat bu jigéen moo xam dafa ñaaw lool waaye fexe na ba sol yéer yu rafet yu gànjaro gànjaro yu foor foor boo ko daan dee ci sori di ko séen noonu te xamoo biiram da ngay defee ne jongama la joo xam ne mat naa wut te jar ne waaye soo ci jotee nag ba summi ko ba gis na mu mel da gis ne kii jarutoon dara dara dara daal di gis ay bonbonam ak i gàcceem ak na mu ñaawee ak na mu doy waar waxat jaa a dikk na fil xabar yi ci xabar ni ànd na duniyaa nag àdduna yutaa def na indi bihaa ci moom yoomul xiyaamati gis penc fii sifati xajoo satin ci melow am màggat mu jigéen xab yi xatin muy aji ñaaw shawha amuy aji ñaaw ba tey zarqa alxaymi muy aji xer bët bët yu wert wax shati wacci tey aji ñaaw kanam tey aji kiis am kanam xat fataxat koo xam ne ubbi na faaxa gimiñam wa kasharat mu siiñ xan an yaabiha ay bëñam ba idaara aaha ndem gis na ko alxalaayiqu mbindeefi xaaloo ñu wax ne naxoo danañu ruslu billahi ci yàlla min haa ci kile daal ne waaw ma haadihi lqabihatu ana kuy kiroy aji bon ana kuy jile aji bon ba shawhaaw ji aji ñaaw ba yuqaal te defi wax lahum ñeel le ne leen haadihi kile adduniyaa mooy adduna allati ma nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tataxaasadoona di añaanante xalehaa ci moom wa li ajlihaa ngir moom itam kuntum ngeen nekkoon tatashaajaroona di xoloonte Watas fi kona tangen di tur ak adara ya, dia ki xëyri xaqin ci lu deug wa taqtahun tangen ngeen arhamakum dog arxaamakum seeni mbokk seeni jege ñaale wa taxtarroona te ngeen di waroo bi suxru fiha ci ab taaram summa maru topp def ni digle biha ci ñu yobu aduna ilan nar jeme ko sawara mune ne ñaari ñu dañuy andi aduna bu misalo màggat bu bu ñaaw ñaaw bët yu xew géej gi kanam gi ñaaw lool mel ne ku ubbi gimiñ gi mel ne ku ŋax siiñ ba ñi su ko nit ñi séenee waaw ku ñaaw kii kum doon waay leen ah kooku de muy àdduna bu ngeen nekkoon ci àdduna muy àdduna bu ngeen nekkoon ci moom bu ngeen nekkee ci kër gu njëkk ga waaye ni mel yëpp teewul da ngeen daa añaanante ngir moom di xuloo ko xeex ak a rayante sax ngir moom di dox di wax seenu mbokk itam ngir mom taram bu ñak solo ba yon dal ci woru ba yon dal dal leen su ko defé ñu dal wax addu ne ko demal safara na ñu faale magal mu jigen ñu digal ko ne ko demal safara demal safara taqul dana wax ni ya ilahi ya sama borom ayna ahibai ana sama soppe wa adbahi ak sama way top wa ashiyahi ak sama andando fa yu baru te def bihim ci ñoom ila naar ñu jëm safara moo xaa ànd moom mhm. nee na buñ nee adduna te misaaloo màgg mu jigéen bi ne ko demal sawara day wax waaw ana sama soppe ma amoon ci adduna amoon naay soppe amoon naay àndandoo yàlla ana ñooña yàlla wax ni ko demal te yóbbaale ñooña demal sawara mi ngi te yóbbaale ñooña moom mun bokk na ca ne ànd na ko mbir moo di rawaa nett ni na abu xurayra abu xurayra te abu xurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi naka yonente bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam xaala waxoon na ne yaa aba xurayra te yow aba xurayra atu ndax da nga namm ak uriyaka ma woon la adduniya adduna fa qultu ma ne ko naxam waaw yaa rasulallahi yow yonente bi yàlla bi fa axa samu jàpp biyo bii ci sama loxo wantalaxa te mu doy way te mu dem xataa waqafa ba mu taxaw bi ak man ala masbalatin ci santaare fiha boobu nekk na ci ruusun ay bopp minal aadami yi na ci doomi aadama yi mulqaatu ni duñu sànni wa baqaaya xisaamin ak desit ay yax naxirat ni aji funux waxat taman saqatte tasaaroo nañu watal la wasatte ñu réexoo bi najaasatil aadami yi na ci sobex doomi aadama yi fa qaala mu ne ma yaa abaa xoreyrata yow abaa xoreyrata xaa fii lii ru'uusu naasi mooy boppi nit ña allati nga xam ne taraaxaa nga leen gis kaanat nekkoon nañu mis la ru'uusikum di kem seeni bopp mun tali atan di aji feese minal xis ci xir wal ijtihaadi ak farlu xalaa jam fi duniyaa ci dajale àdduna wa kaanu nekkoon nañu yar joono di yaakaar mun tool axmaari ci yàgguk ay dund ay guddi fan danañ ci gudduk fan maa li nga xam ne tarjumu na ngeen ko yaakaar wa nekkoon nañu yow jiddoona di farlu fi jam ximaali ci dajale alal wa ximaarati duniya ak dundal àdduna kamaata jiddoona ni ngeen di farloo fi jam ximaali ci dajale alal wa ximaarati duniya ak dundal àdduna fal jii ndax yi rasul mooy funuux la ximaamahum seen yax wata la wasat réexu na ajsaamahum seen yaram kamaata laa ni nga gisee Abu Hurayra moo wax ne yonente bi moo ma ne ndax bëgg nga moon la misaalum àdduna ne ma ne ko waaw yow yonente bi yàlla wi mu jàpp ci sama loxo dama moom ba ci sën ba ca santaare ba gis fa ay boppi doomi aadama ak lu bokk ci ay yax yu funax funax ña nga daggatoo taq sobis doomi aadama yi nee na muy woon Abu Hurayra ñi nga gis ni ñu sopp ko nii doy ci ay boppi kese ak yax yi kese yu funax yu taq taq yu salte salte ñoom day ni ngeen bëgg àdduna yéen ñi ni ngeen bëgg àdduna yéen ñi di ci farloo ko xeex ak yéen ci am xeeb ko te yaakaar dundu gu yàgg ñoom ñi noonu lañ melan yem képp waaye gis nga ñoom tey ji ni ñu mujjee tey jii seen wax yaa ngi funox seen yaram yaa ngi soppiku taq sobe te waxaa di xiraqu yu lay sabar kaanat nekkoon na siyaabahum si di seeni yére ya allati yi nga xam ne kaanu nekkoon nañu yete zayyanoon di waaje bi xaa ci ñoom inda tajammuli fa waaj ga rafetu ga rafet rafet mooy waaj waxtu daxwati ci waxtu woote ga wata sa yini ak waaj ga fal yow ma tey jii xat alqat xaa xat sànni na leen arriixu ngelaw la fi najaasaat ci sobe mu ne ko gis nga sagar yi nga séen ñu sànni ko ci sën bi sànni ko ci mbalit mi jigéen ñi ko daan sol di ko waaje di ko demee xew di ko rafetoo gis nga tey ji soppi ko ne sabara ñu sànni ko ca sobe sa waxaa jii lii dawaa buxum mooy seeni daaba allati yi nga xam ne kaanu nekkoon nañu yàppoo foona di wër xale xaaj ci seen kaw al ardi wàlli suuf si waxaa jii najaasaat yi lay sobe kaanat nekkoon na ab ximatahum di seeni ñam allati fata yi aji neex allati yi nga xam ne kaanu nekkoon nañu yaxtaaluuna di fexe li taxsiliha ci seenug amal wayen habuhaa te koy giir baxaduhum lenn ci ñoom min baxdin ci lenn xat alxaw sànni nañu bihaa ci ñoom xabiixatan mbiw mu muy aji bon natti na tam te aji xesaw laa yaqdiru bu attan ahadun kenn xalaa xurbihaa ci seenu jege min shidd min shiddati natnihaa ngir tarug seenu xeeñaay ngir tarug seen seen xesawaay fa haasihi jumlatu ahwali dunya moy mboolem mbiri aduna kama tashadu ni nga seere wataa mi nga gisee nee na mu ne ma ba tey boo lañ daan sol lañu rafa rafet ni koy waaje mi ngi ni xar ñu sanni ko ci sëm bi muy takk sobe boo xoolee lañ daan war mi ay daago itam gis nga daago ya medd na ñu tam sanni ko fele muy lo xam kenn du ko bëgg a té ci ñu daan bar di wër fele ci aduna bi gis nga ñam yu neex ñam yu neex ñu doon lekk moo soppi ko xayta yu xesu yi ñu sanni ko fele nga xam ne kenn bëggatu koo jege ah mu ne ko nak gis nga kon ad àdduna non rek la démé loo ci siiw muy dara rek fekk nag dara ñu araada ku bëgg ay yëpp ki yëpp joy xaalat duniyaa ci aduna fa yëpp ki na joy fa na naka moom mawdixul bukaay mooy bérébu jooy nee na ku bëgg a jooy ñàkk sabab àdduna ak ni mën a naxe nit ñi daal say boo jooy ndax jar na ko ndax moom bérébu jooy la xaala abu hurayrata abu hurayra ne radiyallahu anhu fa bakaa te jooy man képp koo xam ne kaana nekkoon na xaadiran di aji teew minal xawmi ca nit ñi nee na ñu fa teewoon ñëpp daal di jooy wa min ha bokk na ci ne ànd hoo naka moom kaana amoon na wala kaana nekkoon na fii zamani Iisaa jamono Iisaa alayhi salaam salaasatu ñett saa irina di way dox fii tariixin ci aw yoon foo jëloo te ñu fekk kantan am koom fa qaalu ñu wax ne fal yamshi na dox waahidun kenn min naa ci nun yastari di jënd la naa ñeel nu taxaaman aw ñoom fa ma baa yooyu ahaduhum kenn ci ñoom li yastar ya ngir mu jënd lahum ñeel leen taxaaman aw ñam fa qaala mu wax fii nafsihi ci xalam ne asawaabu jub ga ak aj xalam mooy ma def mooy di ma def lahumaa ñeel leen ñoom ñaar su man tooke fi ci ñam wi li yàqulaahu ngir ñu lekk ko fa yamootaa te ñuy dee wa an farida te may wéetoo anaaman bi kan si ci kawam bi duurahumaa ci biir ñoom ñaar nee na jamono Iisaa alayhi ndax amoon ñett ñuy tukki aw ci yoon ñu dem ba yàgg ñu yem ci koom mu rëy rëy ñu ne kenn ki da ngay dem jënd li aw ñamuñ lekk da ngay dem ci dëkk ba nga jëndi lekk moom nag ba mu demee bay bay jënd ñam wa ba jënd ko ba àggal mu xalaat ne daal da ci war a def tooge su demee moom bañ a lekk jox ko ñaar ñooñee ñi lekk ko dee mel na moom dong mu féetewoo koom mi mu daal def noonu daal jënd ñam bi war ko def ci tooke moo tax mu ne fa te mu def ñu mu ko waxee noonu la ko defee boo jaxalate mu def loxumaa ñeen leen ñoom ñaar su man tooke taxaami ci ñam wa sa jënd ñëw yi def ca tooge ndax bëgg bu ko ñaar ñooñu lekkee ñoom de benn moom dong mu féetiwoo koom mi watta faxati dëppoo arrajulaani ñaari waaye kon watta faxati dëppoo arrajul arrajulaani ñaari waaye annahu ci naka moom isa wasala bu agsee ilayhima jëm ci ñoom ñaar xatalaahu ñu ñu rey ko wan faralaate ñu wéetoo wan fara baa du kamsi ci koom mu duunaxoo ci lul moom léegi ñaar ñoo itam ñu ngi xalaat ne dañoo war a bu dikkee rek ñu rey ko fi te ñoom ñaar ñoom mu daal koy séddoo moo gën ñett séddoo ko xaala nee na fala maalo sala ba mu àggee laxumaa jëm ci ñoom ñaar bi taxaami ci ñam wa al mooy ma dimuñ tooge xatalaaxu rey nañ ko aa fa maata te mu dee wa akkalaa ñëw itam ñu lekk ak taxaamu ñam wa fa maata te ñu dee ñoom ñaar seet loolu xam nga nag am afsi rek léegi bëgg leen a jox ñam bi ñu lekk ko de ñoom ñëpp ñu njëkkante ko daal koy bokk rey ñaar ñu ñoo jëk jëk ray ki andi woon néew bi jekk ñu gaaw nekk ñoom ba ñëw itam fekk xam nga tooki woon na ko ñoom ñoom ñoom ñaar ñëpp daal di faatu fajitaasa te jéggi xiisa xiisa alayhi salaam bi zalikal mawdihi ci boobale béréb maxal xawaari yi na ànd ak ay dongoom dongoom yu baax ya fa xasate mu jàngat xaalihim ci ñoom alxasasa li ba suma xaal topp mu ne waylun taskare li man ñeel na koo xam ne talaba sàkkoon adduna adduna nee na xiisaa dafa jàll xiisaa dafa romb ci béréb boobee ànd ndongo yu baax ya daal leen ñett li xisab ñetti gaa yooyu le daal ne àdduna day moo day waar àdduna day moo bon toskare day ñeel na àdduna na kuy wut àdduna wa am silatuha ay misaalam nag ak saru ñoo gën a bari min an tuzkara ci bureefi leen tudd fii haadihil waraqaati ci lay kayit waaw ah, nee na misaali àdduna la moom dafa bari loolu dañ ci andi loolu rek waaye bari na bari waaye boo xam ne yëpp mënu su ko fii sartun li ab dog la fi tahdiri ci wattandikuloo ala xubbi dunya ci sopp àdduna fi mu def xalaana min moo ci ëpp topp fi tahdiri min xubbi dunya loolu ñu ëpp gis waaye xalaa moo nekk foofu wa min xalaamati mahabbatiha bokk na ci màndarga ak soppa moom àdduna xubbul wilaayati sopp ak pal wal qadaa yi ak sopp atte wa muxaalatatil umaraa yi ak jaxasonteeg buuri àdduna yi wala wusaraay ak seeni jaraaf bokk na ci yi wane ne bëgg na àddina su ci bëggee pal mbaa mu bëgg ci ñu fal ko muy àtte mbaa mu bëgg di jaxasoo buur yi ak seeni dab loolu bokk na ci bëgg àdduna wa qaala waxan na annabi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne xubbu dunia sopp àdduna rasu kulli xatiatin mooy bopp bépp ñaawteef wa man araada ku bëgg an najaata mucc minal maasiyati ci mooy falaa yu xaalit kon bu mu jaxasoonteeg ëhlaha ñooñ mooy ga yonente bi nee na woon bëgg àddina mooy njëlbeenu lépp lu ñaawteef bëgg àdduna moo koy sabab moo nekk ci bopp ba ku bëgg mucc ci mooy dangay bañ a jaxasoo ñoo koy def booy jaxasoo ñoo bootul leen nga def ko waxiila waxees na ne oox yi wax yoo foon na ilaa Moussa jëme ci Moussa alayhi salaam ne ko laatu jaalis bu toogaaleeg ahlal ahwaay ñooñ bànneex ya fa yuf gisoo ba ñuy sos fii xaltuka ci sa xol maa loo xam ne lam yakun amu ci woon